bokk yi gannaaw bu nu sante sunu boroom subhanahu wa taala julli ci yonentam bi sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yal na nu yàlla boole jëggat dellu di ndokkeel jullit yépp ci jaamu yàlla gu mag yi nga xam ne ay fanam mat na yal na nu yàlla boole ca lim ba muy nangul te fekke loo waat nu ko ay at yu bari te saa bu ñëwee nu man ko yàlla jaarale ci jële fi lépp luy ak wéradi ak ñakk ak deewu xol ñu xam ne nag fan yooya mat na waaye dundug jullit bi lépp ak jaamu yàlla la war a nekk loola day joxañ bu suñu borom joxañoon foofa ca fan yooya waaye lañuy rafet rafeta njort ne yàlla mën na noo boole ca ñam yi nangul lañ ca doon jànge nañ fexe ba buñ ko fëtt noonee ñu xañawoon suñu bopp ya nga xam ne ñoo ko moom yàlla daganal ko ci nun nu xañoon ko suñu bopp te yàlla tax na wéy noonu ñu demee woon suñuy gët ci xool lu ñu warta xool na wéy ba suñ cër yépp mat yàlla na yàlla jàppandalal jaamu yàlla jullit bi nag kon amut waxtu wu mu koy yokk bu waxtu ko jàllee mu wàññi ko amut waxtu wu mu koy gën a fonk di bàyyi weneen ndax kat bu yàlla xasee ba digle yàlla moom ci boppam tënkuwut ci ay waxtu tënkuwut ci ay bis tënkuwut ci ay weer tënkuwut ci ay at tolloo naag nag ñun ñu ca tënku léeg-léeg mu joxoñ nu fenn rek ne bu agsee góor góorgóorlu leen moo xam lam ñu cay fay yàlla bum neen ñu xam ne jullit dëgg dëgg nag li ñu koy xàmmee yëmut rek ci weeru koor wi mu woor ko sàmmoonteeg lam ca war a sàmmoonte ba weer wi jeex rek mu joxe fa jaax euh, doxe fa naax saay déedéet dundam gépp daa war a doon ci moom weeru koor ginnaaw fekk na ko wenn yoon ba woor ko waaye mbubb mi ñu koy xàmmee it saa bu ñu ko xoolee doon ko gis ca koor ga dañ ko war a gis bu ñu waree it mu sol mbub mu mel na moom soloon ci koor ga kenn du leen xàmmee kon jullit bi dëgg-dëgg dugg ci weeru koor mën naa tax mu yokk ay jaamu yàllaam ndax la ca yàlla dige waaye bokk yi lu nit tàggatu weer wu mat sëkk su weer wa jeexee munu ca dara mu yamale ko fa war naa xoolaat boppam yàlla na ci yàlla musal kon koor ga jeex naa jàmm ay fanam waaye ay jeex itam dafa war a feeñ suñuy melokaan war a fenc suñuy jëflante suñu borom mi nga wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa di ko wan am solog julli ba leeralal ko bu ñu demee ba fitna am ana nu ñuy jullee waaye ba muy jeexal euh, aaya ba daf ko ne bu julli jeexee yitkat du tax seen jaan wàcc ay ca na làmmiñ wi tudd yàlla moo xam dangeen a toog wala dangeen taxaw wala da ngeen tëdd waaye yàlla yàlla moom bu mu dal bu mu jug ci seenu làmmiñ Euh, mooy aaya bi muy wax ne wa ida kunta fihim fa aqamta lahum salaata jullik salaatul xawf fa ida qadaytum salaata fa adkuru llaha qiyaman wa quudan wa ala junubikum dellu waxaat lu ko niru lool ne jaamu yàlla yemut ci bis sàngam yemut ci weer sàngam waaye ba ba ba nit ki faatu la waabud rabbaka xatta yatiyaka al yaqin moom la sëñ bu mag bi di leeral ci ab téere masalikul ginaan naan wa fassaru lafda al bi bil yaqin fi axiri al xijri bila mawtin yaqin am na ñuy naan lañ doon wut ci koor gi am nañ ko ñetti xaaj yañ ko xaajoon rafet na njort ñoom ci ne daje nañu ak loola kon war nañoo mën a noppalu déedéet sëriñ bi ne waabud rabbaka xataa yatiyaka al yaqin mooy tekki wut deer jaamu yàlla ba mu wóor la li nga doon def yàlla nangu na ko am nga la nga doon wut déedéet xataa yatiyaka al yaqin mooy ba ba dee di dikk faagaagal la kon jaamu yàlla bokk yi mook dundub jullit bi ñooy ànd ku am xel ku nekk nag lu mu dugg ba génn ca war naa xool ba xam jekk na mu am ca dara wala ëmu ca dara ci suñ jamono danañuy gis léeg-léeg ci liggéey nit ñi ñu toog ba yàgg ñu xool nangami yi ñu weesu lañ jëmbatoon meññ na ñor na ana lu si juddoo ñu xam ba xam dañuy dolliwaat wala dañuy wàññiwaat kon boo ku jóge ci jaamu yàlla gu ñuy toll na muy xame ne yàlla mën na koo nangu loolu njàngale mu yonent bi sallallahu alayhi wa bu fekkee xool na boppam gën sawar ci jaamu yàlla xool na boppam gën a sawar ci mbooleem taxawaay yam doon taxaw ci koor gi ci dimbalee ci seeti mbokk ci jaala ji dem ca armelia bañ a tàng xam lu kenn ku naan dama yittewoo nangam ak lu ñuy ci jamono toll mu jaral ko jug su fekkee gën naa taxawe yooye mën naa rafet njortu ci ne moom kat la mu doon def jag na ndax cëram ya tàmm nañ ko ba jaxasoo nag dara kon bu ñu ko bëggee tënk mooy nit di xame ne la doon def jag na wala jagut su gënee sawar ci jaamu yàlla su gënee sawar ci saa buñ ne suba bisub koor la ku ku mën na ko woor mu fas ko yéenee woor te woor ci lépp lu yàlla tere te woor ci lépp lu yàlla tere ci ay déglu ko xool ko dox jëm ca laal ko wala dugal ko ci gémmiñam mu war a dem ci biiram jaxasoog yaramam kon yàlla na ko yàlla nangu sëriñ bu mag bi tënk ko ci yenti bayit waabud rabbaka xatta yaatiyaka al yaqin nit du wàcc ba ba muy faatu ku faatu moom ñu tudde ko ci waxinu jamono ji léegi te di ko teggi na naan wàcc na liggéey wax nañ dëgg waaye lam doon liggéey yàlla na fekk mu la yàlla santaane woon rek su boobaa day tàmbalee su añam waaye su fekkee lam doon liggéey la ca ëpp am xelam daal la jiitaloon wàcc na liggéey ci caaxaan yal nañu ci yàlla musal wa amiri l awqaata binnawaafili baada alfaraidi bila tagaafuli sëñ bu mag bi def ne boo defee farata ba noppi jaamu yàlla gu nekk am na naafilaam bu la ca kenn raw koor naafilaam mooy koor toog ba mu neex la ba mu soob la nga fas yéene woor ñaari fan walla woor benn fan wala daal woor ba mu soob la ba mu des bisub korite gi ak bisub tabaski takk mooy naafilab koor wa hakada bi sawmi wal awraadi wa naka noonu it tudd naa ko léegi koo xam ne daa sasoo bis bu mu jàng nangami xisibi alquran su demee foo xam ne ab kaamil jékku jékkuwu ko fa te mukkul alquran ba man koo tari nay tudd yàlla mooy wërd tudd yàlla nag bari na ay melokaan waxuñu nag dara say nopp di xaacu yàlla mi ngi koy mi ngay tudd boo ko déeyee it ak bala nga koo dee sax dana ko dégg di ko wettali ko am na mag moom laa joxoon muñ xam ne ko ci loo ne mu ne ko maa ngi ca la ma déggaloon mu ne ca des mu ne ko maa ngi déglu ndigal rek loo ma wax ma def ko bu ma noppee toog di dégluwaat mu ne ko yéen de wuti na mag yéen fu ma nekk man damay xëy ci farata yi di gontu ci sunna yi di dallu ci man du baateeg mustaxabaat kon kooku bis waxtoom amu ci lenn luy neen ku koy xoolit fu mu tegu tànkam boo fu mu teg sa tànk it mépp fa bañ xam ne mépp nga fa wa bi tasadduqin wa jadbil maali ila dawil xaaji li wajhil waali dëkke saraxe ji ma doon juñ gi léegi ci koor gi awma lu ma ndogoo awma lu ma xadde ku ko tàmmoon ci koor gi na xam ne koor gi jàll na waaye ñi ko doon soxla ba fi ni am na ci ñu ko gën a soxla tey te yàlla rek tax la siyama fadilatu l ayaami maa al aqaaribi wa bil idaami rawati nag lu mel ne yenn yenn fan yi nga xam ne ñenn ñi dañ fay dañ cay soxla ay teraanga te mënuñ ko seen loxo jot na seen gannaaw ñu fexe fexe ba ku ci bëtam xonq bala bët balaa bëta xonq boo ko xamee nga dimbale ko ca sëriñ bi nee na ci yenti bayit yooyu noonu la ab jullit di dunde wa amiri l awqaata binnawaafili baada alfaraidi bila tagaafuli wa hakada bilsawmi wal awraadi wa dikri wal fikrati fi tamaadi wa bitasaduqin wa jadbi lmaali ila dawi lxaaji li wajhi lwaali laa siyama faadilatu l ayaami maa al aqaaribi wa bil aadaami li ma ne amutoon jot xëy ci farata gont ci sunna dallu ci mustaxab ak mun man duub bind na ko ci ay mbindam yu bari waaye dama cee jël buñ miin am na téeréem bu ñuy daaj tudde ko mawaahibu naafia fi madaixi shafia ku ko jàng danga nga ca fekk salaatu sitta bi madxi sitta taatihi batta maa tisaa'i at mi juróom benn weer la juróom benn weer yi daf ci tagg yonent bi tagg yonant bi mooy wane ko rek ndax soo nee am naa nangam nangam nangam nangam nangam mel ne da nga ëppale nit ñi ñu ne la foo ko jëlee boo joxoñee kañ ko jëlee ñu bari dana daa wuti ko juróom benn weer yi muy julli ci yonent bi bi dee tagg yonent bi di ko wane bi de julli ci bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko yàlla diglee inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala annabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima boole kook nag fu ñu ne ma fa la tegoon tànkam ma jéem faa mépp sama tànk salaatu sitta bi mati sitta taatihi batta maa tisaa'i waxuñu bëgg kese kese wala sopp kese kese ba buñ ko tuddee nga jël satala gu tàng naan ko wala nga jaar ci ay xal waaye nañuy xamee ne bëgg nga ko mooy fa mu tegoon tànkam da nga fay jéem a teg sa tànk ndax kat ñàkk koo fekk jamono téewu ko mën a roy diggante yonent bi ak sëñ bi moo gën a sori fuuf suñ digganteeg sëriñ bi ci ay at waaye saxaabatu rasul alayhim ridwanullahi taala alayhim wa sallallahu alayhi wa bu ñu masaan jóge ci weeru koor wala ci xaj makka ay jooy lañ koy gunge aj gi yonent bi mas a fekke wala aj ajug yonent bi bokk bala ñoo taawi samay wax ñu bari dañ doon jooy soxna Aysa ne ko li ñuy jooy lu mu doon damaa gis ñu génn ci koor gi di jooy génn ci aj gi di jooy ñii di jooy mag ñi toll na ñoom mbaadu dañoo def loo xam ne lii dañ ciy def seen diggante seen borom ñu ne ko déedéet yonent bi du la tontu ñoo lay tontu yàlla mi ngi wax ci alquran suratul muminuun wallazina yutuuna maa aataw qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim rajiun am na ñu def lañu war a def ne leen ko yàlla digale seen kem kattan waaye gunge gañ koy gunge ak jooy mooy dañuy ñaaw njort bu dee weeru koor la xamuñ dana dellusiwaat fekk leen fem déet te xamuñ yàlla nangu na ko wala déet su dee xaj makka gi waxoon ne ci koor daa waxoon ne as-sawm as-siyaamu lii wa ana ajzi bi wax ca aj makka ne alxajjul mabruur laysa lahu al-jazaa illa al-janna xamuñu nangu na wala nanguwut te xamuñu danañ ko fekk waatam déet moo tax ay ay jooy lañ koy gunge kon bu kenn naagu lu waay def lu mu bari bari ba nit ñi di ko ko waxalit bu mu tax mu jàpp ne day dem rek tàllal yàlla fay yàlla moom daa mën a segg bokk na ci ay melokaanam xasiib xasiib mooy ko xam ne dara dara dara du ko raw lu mu sew sew lu mu rëy rëy du la ca nax waaye kenn munta muusit ba nax ko lu sew sew yàlla na nu yàlla dimbali basaa bu joxoñee rek ñu mën faa jëm te bu ñu fa jëmee it yàlla bu ñu ci gis suñu bopp te yàlla bu seytaan yebal kenn mënuñu ko jéem a ñi ko fekkee wutoon daaw yal na leen yàlla yaram ñun ñoo ko fekkee ren yàlla nu yàlla dimbale bañ fekk ko déwén yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin